ñoom Jingal ak ñoom seen ah nañ dem rek directement. le grand maire de Guédiawaye. damaa waroon tari. looy tari. ah man samay ko damay tari. ah waa tari. non tari na. ah tari nga ko ah yéen a ma xañ tari bi tey de tey kay nu mel ngeen xam ne yéen a ma ko xañ. Siré. waa Siré na nga def nag. waaw ñu ngi ziar waay. jar koñ ba wala. <laughs> Olivera mu amatul moom. lan koy waxee aloe vera. aloe vera non nit ñi dañ fu mu nekk. ah bon ah moom si foofu aloe vera lay <laughs> diwoo gisoo nii. ah non. non Siré moom. <laughs> Ah, mais Siré loo def baax. loo def baax na loo bëgg a def baax. avec beige. Hmm. bi ci biir aussi. non c'est du bleu Mambay. non ci euh, biir gis nga ko col ah, côté col. Ah, non non non c'est du beige. non c'est bleu kii à l'intérieur marron la. Euh, Birame maa ngi lay nuyu. waaw yéen ñaar ñooñu maa leen di nuyu. waa jërëjëf ah, les nga maa nuyu man. yes. mais Yaas fu ma tourné ñu ne ma ana Yaas. bilaay rek dañ doon football match dimanche. <laughs> ma ñëw gaa damaa tardé deuxième mi-temps laa football démb. benn demi pas yooyu. Ahmed ku la bàyyi. ni ma Ahmed mais ana yaas ma ne leen yaas a ngi fi. <laughs> yaas. man de say mbokk rek laa yërëm. mais mais Siré naka week-end bi nag Siré. waaw ça va mais kii na neex. waaw waaw xaw na tane tuuti. ah Siré il faut ma yoo of nga dëkk non. waaw yow yow soranteeg Ablaye Diouf Sarr. non non non yow kay ñi njëkk a pikiru ci ngay bokk. waaw moom sama mère la quoi. ndax yow moom Ablaye Diouf Sarr moom buy laal pikir ngay laal pikir. waaw waaw waaw mais Yaas mbaa di nga pikiru. man. non après yow laay déglu rek boo ma nee ma piqûre ma piqûre. non non non man non man man dinaa piqûre de. waaw kon damay piqûre. Ah, waaye daal balaa maa piqûre daal la Idriss Seck waxoon. Ah. ba muy dem kaso ba daal naa ko wax. <laughs> jabetu ba cancer ma tension ma. dara jotu ma dara jotu ko joxe sama loxo. lu la ci dal rek boobaa nga xam ne ca. ah <laughs> <laughs> ñëpp ñu nekk si. tey nuyu naa ñëpp kay Zik FM nuyu na ñëpp. nuyu na ñëpp voilà. ma dem waaye ci tribune yéen a kaay ñëw ak ñun ci. tribune a kaay ñëw ak Sonko ak Adji Sarr tey aji waa ji anamu. <laughs> man de ana aji. aji day tëj yëpp. aji weeti Adama fay nag jël na xalimaam de. Hmm. fëgg ci kaw politicien. Hmm. nee na lii occasion la ngir sire pour xale yi nga xam ne dañuy rêver sax peut-être ëllëg dugg ci wàllum politique boobu xam ne politique nekkul yàq der kese xam ne politique defar cité bee ko dafa dugg hmm. dégg waaye dossier Ousmane Sonko bii mais occasion na. ngir député jàppale ko bokk ak ñoom. Mhm. waaw yonent nee na. Mhm. sa mbokk bu tooñee faral ko bu tooñul faral ko. ñu ne ko que ah. sa mbokk la waaw. Mhm. ku tooñ noo koy farale mu ne xanaa teg ko ci siraatal mustaqim woo ko wax ko dëgg. mooy dëgg. faral ko. <laughs> ak lu mën a def. waa ji ne non fii sax def naa defu la fi am bénéfice du doute. yéen bokk ko xor mu nekk député nga nekk député. nga ne yow da ngaa bëgg a profité ci lii ngir yàq deram te waa jee ngeeg jabar ay sympathisant ay ami am ay doom moralement nga yàq ko politique politiquement nga yàq ko. dëgg la Adama Faye fi muy daane ne. Hmm. kenn mën rëcc ci yow sa destin. Hmm, lu yàlla bind si sa jë kenn mënu ci dara. mais gorow Macky sàll bi wax lii nag dossier bii nag damay ragal ne nag nafa nga ca. Hmm. ah. guni mel. nee na yàq sa adversaire politique taxul sa président de la république am beneen naa waaye yàq sa adversaire politique tamit taxul sa président de la république daanu. dara Macky su yàlla dogalee ne dafay toogaat neuf mandat dara. kenn mënu ci leen. lu Sonko dëgër dëgër. waaye yàq Sonko tamit signifié wul ne yàq ko mooy tax Macky continuer mhm. su yàlla ne Macky day wàcc alaa kulli yàlla day wàcc. Mhm. Adama ay nit li de. ay Mbodj. ci tribune yéen a kaay ne pour ma wax la ne. yàlla dafa ànd ak Sonko sax ca bagage yi. ubbi nee na jë yàlla ci boppam dafa ànd ak Sonko. ci bagage waaw dafa am ko juum doon yónnee message yónnee ko benn avocat wu Sonko. ana lu mu wax ci message bi. DSK virgule. Hmm. duñu ko tëj duñu ko condamné. mais dinañu ko yàq ba mu ne miskin ba dootul jarat dara parce que buñ ko tëjee réew mi tàkk maari loolu nit a doon yónnee nit message juum yónnee ko benn avocat wu ko hmm? waay waa ñu jaawale Touba ak Makka nag ne dañuy tawaaf ah loolu tam lan la nag tamit nag la <laughs> ñuy gis lu ne kenn xamul lan la dégg wal fajri ñëw ak ñun ci commission ad baa ngi nii non fi mu ne mbir mi yëpp pëccaxoo hmm? ñaari député ñoo tekki seen ndomba tànk Cheikh Bamba ak giraas yi mbir maa ngi nii waaye Abdou Mbow nee na seen tekki ndomba tànk bi wàññiwul dara ci liggéey bi dara changé wul leen ku di laajal maître Madické Niang mi tekki woon ndomba tànkam ci dossier Khalifa Sall hmm. dafa tax gars yi dellu ginnaaw waa Pastef ne xanaa kumba am ndey kumba amul ndey la Mariama Sagna fii la ñu ko def jëf ci ñaaw rey ko te ba biig ba démb mujjul fenn xanaa bii moo gën a garaaw bu aji na ma yàlla jéggal dañ ne dañoo yegg ci kaw ba pare rendi ko hmm. dossier Mariama ba léegi kenn waxu ca aji bëggu ñoo rey saara muddo ana aji <laughs> gisuñu ko laaj ko Antoine vox populi li ñëw ak ngi ci Guirassy ak Banañ waaye ñoom ñaari député yi nee nañu gars yi dem leen def leen lii daal seen caggal guy la lu ca xew ëllëg nag ngeen yenu seeni responsabilité Abdou Mbow ne leen bu yeboo Sud Quotidien nañu waaw mi ngi nii tuuma yaa ngi nii police nag ma ngay seetal boppam mhm. société civile xëpp ci acide police dañ leen wax ne dañoo jàpp gars yi di leen torturer hmm. non seulement dañoo génnee communiqué weddi waaye ña ngay menacé sax nag bu dee da ngeen di dóoree ngeen bàyyi dóoree moo gën ngeen di tiitalaate nii source a ñëw ak yéen ci Habib a ngi nii nee na ma yonent yàlla Insa. mu ne la hmm. kan ci. <laughs> Habib yonent yàlla bi dellu si waat alxuraan a ko wax. day dellu si ci kaw suuf. nu mu tudd moom ngir jubat Habib. Habib a ngi na mooy Insa. yàllaa ko yónni mooy yonent bu mu bi. c' est un messager d'Allah. Habib moom xanaa ko dégg nga commission ad baa ngi nii gars yi tekki nañ seen doomu tàng mais PDS la moo tax ba léegi tekki seen doomu tàng. source a ne parce que Cheikh Bara président groupe parlementaire dafa am dëj loolu moo tardeel bagage yi déggoo ma de ñaari démissionnaire yaa ngi nii selon réew mi quotidien le quotidien yéen kaay nañu politique du siège vide la gars yi ne déedéet. Mhm. gedduñu pour gedd non principe a tax ñu dem. Abdou Mbow ne leen dara du ci wàññi dara dara dara dara dara université Cheikh bu Ndakaaru moom mbete guerre jaase cour xóoro roof waaw mais noo jàngatee loolu taxawal def si benn jàng non temps bi ma ko tey gisoo ni non jàngat bu ndaw rek may ma ko rek may ma ko rek man personnellement man jàngat li ma jàngat man gëmuma lii hmm. man wax xëy na yow la engagé hmm. manipulation laa ko jàppee bu ñu wéetee ma wax la lu tax ah, ñun kenn duñu ray des fi dégg nga libération yéen kaa ñëw corona baa ngi rey de week-end bi vingt une personnes la rey. Mm. dégg nga ni capitaine Pape Mbengue mi ñu jàppoon ne daa dee te doon yóbbu gars yi jàpp nañ ko te da doon yóbbuwaat encore kat. dañoo jàppoon yi dafa dee. waaw dégg nga les échos yéen kaa ñëw ak ñun ci maître Abdou Dialy Kane mooy avocat wu aji Sarr. Mm. nee na ñoom ñoom seen xel daa dal te ñu ay preuve te bu ñu demee ba taxaw ci suura atta bi ngeen di xam ne Ousmane Sonko du dara. ay du sala yaay leer. moo ko wax de. moom moom nee na du du waxi Ahmed de. du wax ak kenn. Sonko lu moom interlocuteur am juge bi la. te ñu ngi kii bagage. Sonko ak Patricia ak Birame Souleye Diop mi la nag seen ëllëg lañ jàkkaarloo. Mm-hmm. dégg nga loolu. laas yéen nañu waaw kay commission ad baa ngi nii fi mu nekk nii nag guddi gu bët Sénégal lu ñu dund. mitti na lool. Abdoulaye Diouf Sarr nga nele ak Covid ya gis nga dossier Ousmane Sonko bu doon avion la dañ naa ñu ngi zone de turbulence. yëngu nekk nii yëngu na dafa yëngu. dafa ministre bi nee na fii ak njeextalu deux mille vingt deux bépp sénégalais bu bëgg ñu pikiir la nga ñëw ñu ñàkk la. bépp sénégalais bu bëgg. maanaam ce n'est pas obligatoire encore une lii mooy coow li xoola mhm. désir bi phrase bi ñu ngan yëpp le désir bi tous les sénégalais kii. le désir la wax le désir. Mhm. seront vaccinés avant deux mille vingt. ba pare nee président de la république moom moo njëkk vacciné. kooku jarul journal bi di ko bind. le soleil ah. réew yëpp seen président yi ñoo njëkk a ñaxu. loxoom bi kay nit ñi dinañ ko bi moom nit ñi dinañ ko gis. bu dee day takk ay ndomba yi na ko tekki fii dina ko wane. dégg yaas. Mhm. évidence yéen a kaay nañu Antoine a ngi nii. Antonio xaw ma day takk ay ndomba xaw ma mais fii. sénégalais yi noo def ñu gis ko dina ko génnee de dina pikiru de toñoo ngi nii toñoo moom coowal Adji Sarr sécurité intérieure maanaam foowu ci dégg nga loolu mhm. enquête yéen ñëw ak ñun ci ci dañoo jaar nii ñii jaar na ca des la grande division ah en tout cas nekk nii daal direct news nañu question yi ñu war a laaj a bari déggoo ma de mhm. waa ji daf ne may rocci waat tweet bi ñu ne dañu ko jënd deux milliards de cent lan moo ciy dëgg gi. loolu tamit. ñan lañu war a vacciner. daa lan moo tax ba yeneen réew yi ñun liñ ko jëndee gën a seer ñeneen ñi lu tax Chine may ñëpp te ñun mu jaay. Diouf Sarr kaay wuyu. la ñu jaay sax dafa cher. dégg nga loolu Dakar Times nañu vaccin yaa ngi nii. am na avantage de. bu ñu la ko duut ñaar fukki fan ak juróom-ñett 28 jours assurance Malick Diop da ngaa gore. <laughs> nga ne ko leen. assurance Malick Diop bii sunu rëy la. après 28 jours. mais waaw. moom kay boo tëddee sa ginnaaw ba nag. 24 heures ñëw ak yéen ci message bi ñëw nee ngi nii message bi dérangé. DSK du ñu ko condamné mais dinañ toroxal Ousmane Sonko ba dootul jar dara ci ñum réew. Hmm. mooy message bi ñu jot. waaw mooy message bi. Hmm. en tout cas ku ñu pikiir tey moom njaabu pikiir laay def di demaale. ku ñu pikiir. 28 28 jours assurance maanaam yow da ngaa gore. lu soo ko way. kon daal 28 jours la. <laughs> président dañ koy ñàkk 28 jours. yàlla baax na. jërëjëf